jër ngeen jëf jàngeen ngeen jëf yéen ni ñuy bàyyi xel ci Public SN ñu doore ko ci li gën a fës ci ay actualité bokk na ci kaddu yi nga xamante ni rek kii di ministre du Moussa Bocar Thiam mi ñu dénk lépp lu soxal mbirum communication ak télécommunication yëkkati woon na ko nag daal di koy jagleel ñëpp ñu nekk ci diwaanu Rosso mooy commerçant yi ba ci ouvrier yi lu soxal élection présidentielle yeeg candidat ba nga xamante ni rek mooy seen candidat te ñu jël choisir ko mu di Amadou Ba moom Moussa Bocar Thiam nag daal di def ab menace jëmale ko ci ñi nga xamante ne rek moo di euh, commerçant yi loolu nag it yëkkati woon nag ay coow taxoon ba ñu wax ni daal li ni mel war nañu ko dakkal bu fekkee ni dañuy fàttaliku rek ci jamonoy Abdoulaye Wade yi te ci ñaareelu tuur bi yëkkati woon nag kàddu yi ni mel ba tax mu am lu bari loo xamante ni sax xawoon na ko caa sooxe moom mi nga xamante ni nag moo di Moussa Bokar Thiam nag ca wàll woowu it bi mu koy ba tey ca kàddu na mu ko waxee woon mooy je m'adresse à tous les Wolof les commerçants et ouvriers qui sont à Ourossogui donc bu fekkee ni daal souhaité ngeen votel Amadou Ba mooy li gën ci yéen ngeen voté contre Amadou Ba nag moom mooy ngeen déclaré ma guerre te it bu boobaa di ngeen am jafe-jafe bu soxal wàllum économique bu réew mi leneen loo xamante ni rek kaddom googu yëkkati na ko tax nag ña nga xamante ni moo di commerçant yi ak ouvrier yi di réclamer la nga xamante ni moo nekk seen ñaar fukk million yu président Macky Sall ndàmpaayoon ca jamono ja nga xamante ni rek seen marché ba nekkoon ci oroso gi dafa daal di tàkk Macky Sall daal di jëloon lu toll ci ñaar fukk ci ay millions leen koy ndàmpaay loolu nag nag la daal di tey eh, ñii di commerçant yi ak ouvrier yi ngir daal di koy laajte kii eh, ni daal yëkkati woon na ko na ko leer ne moom Moussa Bocar Thiam daal déclaré na guerre eh, ya fa nekk ndax ña ngi koy tongal ngir mu jox li nga xamante ne mooy ak ba nga xamante ni président Macky Sall jotoon na leen ko jox mu nekk ci ñaar fukki million ngir ndàmpaay jëmale ko ca la tàkkoon foofu ca marché ba leneen loo xamante ba tey ci politique la mu Karim Wade ginnaaw ba nga xamante ni gis nañ ko mu daal di koy tweeter nee na amul ci benn ci ay candidat yi daal di bokk ci élection yi yoo xamante ni daal gis na ni toll nga ko ci wagg noonu daal la ko daal di waxee ba tax ni moom it euh, coow la ñëpp doon wax ci mbirum alliance ak lin mel Karim daal di na ci ñëw leeral ko ba mu leer nee na amul kenn koo xamante ni rek daal di na koy jox euh, parole am jëmale ko ca daf ko war a du ko war a jàppale Karim atit wax na euh, li nga xamante ni rek gis na ko ci géewu politique bi rawatina caravane yi ak yi ci jot a ci ay kàddu mal na ni daal ñu yëkkati fa ay kàddu yëpp di mal ne ku koy sous-estimer ak di koy ñàkkal fayda moom Wade fils daal xamal na ni daal euh, propos yu ñu ni daal kenn tollawul ak moom te la nga xamante ni na euh, xew te yeneen élection ya nga gis nañ na ko euh, jàppee ci loo xamante ni tegu ci ci yoon leneen loo xamante ni ji war nañ ko yoonal ba mu yoon Birame Seck moo ko daal di ñëw moom mi nga xamante ni nekk ci société civile bi moom mi nga xamante ni moo nekk ci forum civil ay kaddu yi nga xamante ni da ko jël daal di koy laaj son excellence président Macky Sall jëmale ko ci cadeau fiscal ba mu daal di jox euh, ñi nga xamante ni rek mooy euh, organe de presse yi ndax it nee na bu fekkoon ni président Macky Sall daal demoon na bay def ay cadeau kado bi daf ko waroon a jël daal di koy def muy ay investissement yu mën a génne journalistes yeeg techniciens yi ci li nga xamante ni ñu ngi koy dund mu di ay jafe-jafe waaye du woo ñi nga xamante ni rek mooy ñenn ci ay euh, patron de di leen koy jox waaw président expliquer daal li nga xamante ni daal la jublu ci li ni mel ndax it bu demee ba nga xamante ni daal quelques jours moo des ci élection yi président Macky Sall def li ni mel ana lan lay undu explication yi daal coordonnateur boobu forum civil euh, di biram Seck di laaj jamono ji ki nga xamante ni rek mooy président Macky Sall li gën a fës ci ay actualité bokk na ci kaddu yi nga xamante ni rek kii di ministre du Moussa Bocar Thiam mi ñu dénk lépp lu soxal mbirum communication ak télécommunication yëkkati woon na ko nag daal di koy jagleel ñëpp ñu nekk ci diwaanu Rosso gi mooy commerçant yi ba ci ouvrier yi lu soxal élection présidentielle yeeg candidat ba nga xamante ni rek mooy seen candidat te ñu jël choisir ko mu di Amadou Ba moom euh, Moussa Bokar Thiam nag daal di def ab menace jëmale ko te ñi nga xamante ne rek moo di euh, commerçant yi loolu nag it yëkkati woon nag ay coow taxoon ba ñu wax ni daal li ni mel war nañu ko dakkal bu fekkee ni dañuy fàttaliku rek ci jamonoy Abdoulaye Wade yi te ci ñaareelu tour bi yëkkati woon mu am lu bari loo xamante ni sax xawoon na ko caa sooxe moom mi nga xamante ni nag moo di Moussa Bocar ca wàll woowu bi koy yëkkatee ba ca kàddu yeen na mu ko waxee woon mooy je m'adresse à tous les Wolof les commerçants et ouvriers qui sont à Ourossogui donc bu fekkee ni daal souhaité ngeen votel Amadou Ba mooy li gën ci yéen waaye ngeen voté contre Amadou Ba nag moom mooy ngeen déclaré ma guerre te it bu boobaa di ngeen am jafe-jafe bu soxal wàllum économique bu réew mi leneen loo xamante ni rek moo di commerçant yi ak ouvrier yi di réclamer la nga xamante ni moo nekk seen ñaar fukk million yu leen président Macky Sall ndàmpaayoon ca jamono ja nga ni rek seen marché ba nekkoon on oroso gi dafa daal di tàkk Macky Sall daal di jëloon euh, lu toll ci ñaar fukk ci ay million daal di leen koy ndàmpaay loolu nag la daal di tey euh, ñii di commerçant yi ak ouvrier yi daal di xëyee ngir daal di koy laajte kii di Moussa Bokar Thiam euh, ginnaaw kàddu yi nga xamante ni daal yëkkati woon na ko ñooy commerçant enseignants yi ak ouvrier ya fa nekk ndax ña ngi koy tongal ngir mu jox li nga xamante ne mooy ak ba nga xamante ni président Macky Sall jotoon na leen ko jox mu nekk ci ñaar fukki million ngir ndàmpaay jëmale ko ca la tàkkoon foofu ca marché ba leneen loo xamante ni ba tey ci politique la mu di Karim Wade ginnaaw wax ba nga xamante ni gis nañ ko mu daal di koy tweeter nee na amul ci benn ci ay candidat yi daal di bokk ci élection yi yoo xamante ni daal gis na ni toll nga ko ci wagg noonu daal la ko daal di waxee ba tax ni moom it eh, coow la ñëpp doon wax ci mbirum alliance ak lin mel Karim daal dina ciy ñëw leeral ko ba mu leer nee na amul kenn koo xamante rek daal dina koy jox euh, parole am jëmale ko ca daf ko war a jàppaleem a euh, li nga xamante ni rek na ko ci géewu bi rawatina caravane yi ak yi a jug ci ay kaddu mal na ni daal ñu yëkkati ma ne ak di koy ñàkkal fayda moom wàddu fils daal xamal na ni daal euh, propos yu ñu mën di yëkkati daal nañu leer ni daal kenn tolluwul ak moom te la nga xamante ni jotoon na xew yeneen élection ya nga xamante ni gis nañ na ko euh, ci loo xamante ni daal dara teg ci ci yoon leneen loo xamante ni nag jamono ji war nañ ko yoonal ba mu yoon Birahim Seck moo ko daal di ñëw moom mi nga xamante ni rek mooy forum justice bu forum moom mi nga xamante ni moo nekk ci société euh, civile bi mi nga xamante ni moo nekk ci forum euh, civil ay kaddu yi nga xamante ni da ko jël daal di koy laaj son excellence président Macky Sall jëmale ko ci cadeau fiscal ba mu daal di jox ña nga xamante ni rek mooy organe de presse yi ndax it nee na ni président Macky Sall daal demoon na bay def ay cadeau cadeau bi daf ko waroon a jël daal def muy investissement yu mën a génne journalistes yeeg yi ci li nga xamante ni ci ay euh, patron de presse di leen jox waaw président Macky Sall daal ñëw jéem ko expliquer daal li nga daal la jublu ci li ni mel ndax it bu demee ba nga xamante ni daal euh, quelques jours moo des élection yi président Macky Sall def li ana lan explication daal coordonnateur boobu euh, forum civil di Seck di laaj jamono ji ki nga xamante ni rek mooy président Macky Sall. li gën a fës si bokk na ci kaddu yi nga xamante ni rek kii di ministre du Moussa kar Thiam mi ñu dénk lépp lu soxal mbirum communication ak télécommunication yëkkati woon na ko nag daal di koy jagleel ñëpp ñu nekk ci diwaanu Rosso gi mooy commerçant yi ba ci ouvrier yi lu soxal élection présidentielle yi ak ba nga xamante ni rek mooy seen candidat te ñu jël choisir ko mu di Amadou Ba moom Moussa Bocar Thiam Trump nag daal di def ab menace jëmale ko ci ñi nga xamante ne rek moo di euh, commerçant yi loolu nag it yëkkati woon nag ay coow taxoon ba ñu wax ni daal li ni mel war nañu ko dakkal bu fekkee ni dañuy fàttaliku rek ci jamonoy Abdoulaye Wade yi te ci ñaareelu tour bi yëkkati woon nag kàddu yi ni mel ba tax mu am lu bari loo xamante ni sax xawoon na ko caa sooxe moom mi nga xamante ni rek moo di Moussa Bokar Thiam nag ca wàll woowu it bi mu koy yëkkatee ba tey ca kàddu yeen na mu ko waxee woon mooy je m'adresse à tous les Wolof les commerçants numéro kii donc bu fekkee ni daal souhaité ngeen votel Amadou Ba mooy li gën ngeen voté contre Amadou Ba nag moom mooy ngeen déclaré ma guerre te it bu boobaa di ngeen am jafe-jafe bu soxal wàllum économique bu réew mi leneen loo xamante ni rek kàddam googu yëkkati na ko tax nag ña nga xamante ni moo di commerçant yi ak ouvrier yi di réclamer la nga xamante ni moo nekk seen ñaar fukk million yu leen président Macky Sall ndàmpaayoon ca jamono ja nga xamante ni rek seen marché ba nekkoon ci oroso gi dafa daal di tàkk Macky Sall daal di jël jëloon euh, lu toll ci ñaar fukk ci ay millions daal di leen koy ndàmpaay loolu nag la daal di tay euh, ñi di commerçant yi ak ouvrier yi daal di xëyee ngir daal di koy laajte kii di Moussa Bocar Thiam euh, ginnaaw kàddu yi nga xamante ni daal yëkkati woon na ko na ko leer ne moom Moussa Bocar Thiam daal déclaré na guerre ñi nga xamante ni ñooy commerçant yi ak ouvrier ya fa nekk ndax ña ngi koy tongal ngir mu jox li nga xamante ne mooy ak ba nga xamante ni président Macky Sall jotoon na leen ko jox mu nekk ci ñaar fukki million ngir ndàmpaay jëmale ko ca la tàkkoon foofu ca marché ba mbokk yi lii fës ci lu ñu leen indil ci actualité yi xanaa di leen di wax ngeen di wéy rek di abonné seen chaîne bi nga xamante ni rek mooy Public SN TV